li xew tey lu extraordinaire la kenn ci ñun regretté wul yi mu def depuis des années des mois tey tendance ma gis partout au Sénégal wane na di sacrifice yooyu jaroon na ko ndax Yewwi Askan Wi dafa mel ni sénégalais yi won nañ ko ni am na yaakaar gu ñu teg ci loxoom yaakaar googu nag aucun d'entre nous la n'a le droit mu yàq ko kenn amul ci ñun droit boobu mbokki Ziguinchor yéen ñëpp xam ngeen ni objectif bi jublukaay bi palais de la république lii étape rek la objectif bi mooy objectif bi mooy 2024 ñu jël jëlaat suñu réew jëlaat palais bi daal won sénégalais lan mooy gouverner pour le service pour l' intérêt exclusif du peuple loolu mooy objectif bi waaye lii mënuloon ñàkk parce que nag balaa ngay dem balaa ngay seet fu mbali fu sori na nga bale sa buntu kër ba noppi ñun fii mooy suñu kër moo tax ñu dellu si te yéen la jeunesse defe ngeen ko confiance bi ngeen placé si ñun nag man mosuma am sikki sàkk moo tax ñetti fan laa campagne fii Ziguinchor dem naa jàppale suñu yeneen candidat parce que xamoon naa ni les populations de Ziguinchor kenn mënatu leen ndax fen bi jeex na naxaate bi jeex na et que je savais dañuy gagné loolu yàlla def na ko ñu ngi waaye nag tey la liggéey bi di commencé tey mun ngeen feete de parce que vous méritez de fêter cette victoire mais xam leen ni bis ni ki tey fecc bi dina néew caaxaan bi dina néew liggéey bi dina bëri parce liggéey mooy defar ab réew wax naa leen projet yi nga xam ne moo nekk ci suñu programme projet yi ñun ñoo koy réaliser du ma doon un maire ñun équipe bi yëpp docteur Cheikh Tidiane Gueye président conseil départemental ñi ñu àndal même ñi newul ci liste yi di Marius Sagna mi newul ci liste yi mais day ñëw fii ñu ànd liggéey même ñi nga xam ne bokkuñu woon ay bis wax naa leen léegi mon frère Toussaint Manga yéen ñëpp xam ngeen li ma sekk ak moom ak fi ma ko teg ak fi ma teg dañuy joxante loxo parce que ñoo bokk suñu Casamance man dinaa doon maire Casamance Ziguinchor waa yëpp je serai le maire du ma seet kan lan mooy diine jàmbur du ma seet lan mooy xeetu jàmbur catholique jullit koo xam ne religion traditionnelle nga gëm ñëpp laa yemale ah, ah. séeréer Wolof Joola Mattañ Manjak keneen ak keneen yéen ñëpp laa yemale nous sommes tous des fils de Ziguinchor kon ñun du doon maire ñëpp la ñuy doon Ablaye Balde dinaa doon maire am bi muy nekk maire saa yu ñu tasee assemblée nationale dama naan kii mooy sama maire tey yàlla def na may maire am Benoît Sambou dinaa doon son maire. il n'y a plus de temps, il plus de place ici pour la haine. ñi nga xam ne seen xol dafa fees dell ak haine defe naa dinañu dee ak haine boobu waaye ñun dañuy dajale ñëpp rassemblé ñëpp loolu nag dinañu doon une équipe boo xam ne nee leen ma yegale rek ñu continuer nañ doon équipe boo xam ne équipe bu leen di jege la du ñu tëju tëju fii ci bureau bi naan fii la ñuy décider déedéet. dañuy ànd ak yéen ñuy liggéeyandoo di xalaatandoo su ma nee chaque quinze jours na ñëpp génn ñu setal dëkk bi man maa ciy njëkk su ma leen nee dañuy def vacance agricole dañuy def agricole ñu andi ay tracteur andi ay machine daal def intercommunalité ak yeneen communes yu am suuf dama bëgg lii ma gis des milliers de jeunes qu'il y a damay ñëw ànd ak yéen ñu dem bayi ji loolu mooy am développement que bëgg naa chacun d'entre vous yàlla xam na ni yàlla mi ma tiim xam na ni cofeel gu laa am ci yéen yéene naa leen lu baax li ma koy ne sama propre doom laa ko am ci yéen moo tax dama leen ñun ñëwuñu Ziguinchor pour koppar bu ñuy ut mairie bi duma fi jël fukki dërëm ci salaire duma jël frais de déplacement loolu dañ koy delloo ci yéen jeunesse bi waaye ay dagg suuf di jaay loolu jeex na fi waxoon naa ni am na ay problème yu am fii ci biir Ziguinchor ci wàllu suuf dinañ ko leeral rapidement dès la premiers jours du mandat waaye ku yaakaar ne da ngay nekk ci conseil du municipal bi pour juuti bi ñuy dagg nga koy détourné di dugal sa poche ndax na sa bopp je di dis à l'attention de tout le monde ku ñu jox responsabilité fii cent mille francs boo ko détourné maa lay damay déposer plainte ñu tëj la que loolu xaalisu alal alalu askan wi la dafa a dellu ci askan wi kenn ku ne na ci salaire am lii mooy message moo bëggoon wax tey mu pacte boo xam ne dama bëgg ñun ak yéen ñu leen ci yàlla ni lu ma leen wax seen part ci contra bi di ngeen ko respecté ci contrat bi di ngeen maa ngi leen di wa jiiñal ni su ngeen ko respecté dans deux ans trois ans nit jóge fu nekk ne maa ngi dem Ziguinchor parce que nous aurons la plus belle ville du Sénégal la ville la plus riche la ville la plus nantie la ville la plus agréable te loolu mën na waaye mi ngi seen loxo ñu ngi leen di di leen sant ba bàyyi président conseil départemental comme ñu ngi ci kanamu def bâtiment mu sànni ci quelques kàddu après ñu continuer doxantu